yow ñamal ba xam. nga chéri li tax juróom fukki at soppiwul ci man dara damay dund waxtu bu nekk ak ay mbir yu yomb dima may kàttan rax si dolli dima bégloo naana sameew alib <laughs> Events S1 4G mën ngeen un petit ci boutique ak distributeur agréé pour marque Evans. garantie de mettre 12 mois là sëñ bi dimbali ma tayal tax. waaw yow mënoo noppi. moom moom kañ la moom kañ la kii de kañ la sànq rek sànq rek. ban heure. ay booru midi une rek waaw yàggul. kees gi dëgër. dëgër na waaw. tëj ngeen ko bu dëgër. waaw tëj bu baax waaw. waaw dëgër moom. lii lii moom lii moom xaw ma fan ngeen jóge bu leen ko waxati nit man bëggumay def ay miracle ci ay koñ. génn ko ci mbedd mi di def ay kemtan. bu ko mën a sama miracle yi jaaxla rek jaaxla rek bal jooy bal jooy bal jooy bal jooy jaaxla rek seetaan say kër kéemtaan waaw te yaakaar la ci rek kéemtaan yi dimbaluñu rek <laughs> sëñ bi gaañu ko <laughs> ndeysaan <laughs> ndeysaan alhamdulilah rabbil alamin ndeysaan ah moom waxambaane la de. waaw waaw waaw waxambaane la waxambaane la ndeysaan ah maa ngi koy seen hmm. mu ngi ngàlloo ngàllaay bu weex ndeysaan eh alhamdulilah ah mu ngi toog ci verdure mu ngi may niru jardin gàncax gaa ngi ko tiim. dëgg dëgg piscine soow ba ngeen di dégg. mu nga fa. chocolat chaud yi lañ koy jox muy bañ baññantu di siisu. Eh, kii audacieux de. eh kii mu ngi ci biir ndeysaan géeju kaw saree gi. ndeysaan muy planche. Ah, ndeysaan mu ngay dox. uru ay ni yaa ngi ko tiim. ndeysaan malaan ko yaa ngi ko wër. ñu ngi koy sàbbal mu ngay kontaan. ñu ngi koy tatagal mu ngi ci bunt bi. kii kay ko suur rek la dafa mel ni moom rek lay xaar. waaw ah, kon mënul ñëwaat. seete bu ngeen bëggee mën naa ko dellusiwaat. Ah. mën naa ko fexe mu ñëw waa kii fa mu ne dafa mel ne ma ngi ca jàmm waaye fa bu ne neex rek alhamdulilah bu dee àjjana rek man alhamdulilah moom déet bu ngeen bëggee may ndi ko bu ngeen bëggee léegi may ndi ko bu fekkee da ngeen ne jéem am lu ngeen di sikki sàkk tuuti sama xam-xam rek moom mën naa ko indi ah ñu wóor na mi ngi àjjana di sàllar amoon benn nga ni la mi ngi àjjana da ngaa bëgg ma yóbbu la fa nga xool da ngaa bëgg ma yóbbu la fa mu ne da ngaa bëgg ma dugal la ci kees na kenn dem rek na kenn dem rek ci saa saa doo ko jum seet ma ci rek seet ma ci rek ma ci rek noppi ñëwal na dem gañkat bi ne leen ko na ñëw ñu jàppale leen lu ngeen ko mën a teel a suul ah. suul leen ko gaaw fu mu ni new kenn du ko kii pour muy xaar waan ndeysaan <laughs> jógal jógal jógal moom moom mu ngi si kii gu fuy la de gu eh, fuy jël leen gaaw ngeen yóbbu dem leen ngeen suul lu mën a gaaw baax yow da ngay bàyyi sa jooy yi jógal jógal waay loolu baaxul baaxul ci moom baaxul ci moom moom xaritam la de waaw xaritam moom mënoon nañoo ànd sax déet déet kon du baax ci noonu nañoo ànd sax eh eh eh seen néew yi fuy la de de ah mu ah? wax muy jaay jaay fuuy. waaw kay sëriñ waaw kay yàlla yàlla fay dem leen de leen di gaaw gaaw gaaw leen gaaw leen ah, trop fort kun trop fort eh, eh, kun bongo kuuna faal kuuna faal suñu tànk yi ñeme jam jam daa am kenn du yow eh.

Yo dara xeeñu Way man tous xeeñu ma Yo Doudou lan ngay ñëw ba ci man nekk di ma xol c'est-à-dire est-ce qu'il y a un problème si il y a un problème si si c'est un débat. waaye nopil si si mais s'il y a un débat on le pose c'est quoi le sujet c'est quoi le sujet du débat le sujet mooy li xeeñ ok dafa am loolu di xeeñ sax man day jóg ma c'est quoi le problème lan moo fi xeeñ man dara dafa ma xeeñ ah fii lan moo fi xeeñ non dafa am lu leen xeeñ fi. yow dafa am lu leen xeeñ yow dara xeeñu la est-ce que nii dafa am lu leen xeeñ non vous m'avez dessus, vous n'êtes pas mes frères est-ce qu'elle va me lu leen Hey, ah, ah, tu m'as fait chier là à la base. <laughs> déjà chier ah, mais qui il a chié. il a mais qui il s'est chié dessus. <laughs> <laughs>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

ma yóbbu xoolal xoolal xoolal bii ni nga ko déchiré tracé ko nii. pain au choco bi nag. pain au choco bi. ah bëggul man mën naa ko ndékkee jox ko moo ko moom jox ko. waaw kay waaw kay est-ce que. suuf suuf leen xam nga xam nga. di saxaar si naan fër nii naal na yàlla na nga ni fër. amiin. Ah, ah. ñun ñëpp yàlla nañ di fët. ñu ne fët samay gaañ parce que xam ngeen ne dama am faiblesse croissant. Mmh. boo xoolee croissant ak ni mu dooree. Mmh. nga xam ne man croissant rek laa bëgg. Mmh. ma croissant rek laa bëgg di. Ah, nga indil ma ko. kon franchement ça me touche énormément quoi. waaw bah, dégg nga waaw am. eh am na ko am na ko saa de sonné naa dégg naa ah. sonné saa dama saa yegsi léegi yéen nañ ko bàyyi mu ndékki comme ça mu noppalu ndékki waale bu paree jóg yow boo jógee rek yees loolu boo paree kaalawu bonewu fekk ñu ci salle. demal demal demal waaw dama ah, ah, ne ah. lañ soxla. waaw man étudiant laa damay def examen. waaw mu bëgg mu ñaanal ma. waaw man de damaa wan lool damaa bëggoon mu ñaanal ma sama doom ji dellu. ah ci rek. bu jëree sax ma jox ko sama bourse mu ñaanal ma ndaanoo yëpp mën naa ko ko jox pour rek mu ñaanal ma. baax dégg léegi yow ci yow laay njëkkee détermination bi nga ma wan nii hmm? ci bëgg dajale sa bourse bépp jox ko mu ñaanal la boo defee détermination bu ni toll ci jàng def say révision di exercer wu examen boo xamala oral wala yow defis nga koy dagg yow. pas-pas bi nga ma wan yow moom ci ci ci dajale sa lépp li nga mindaandoo pour jox ko sëñ bi boo amee woon noonu pas-pas bu ni toll téye sa bopp téye say cër dara du la dal doo fi biir ba fi nekk naa dañuy dellu xool nu ñuy delloo biir yaa ngi dégg tey nag sëñ bi mënu recevoir kenn tey ndax tey pour une personne très spéciale mën a lijjanti sa ëmb yow lijjanti sa examen yaa ngi dégg te loolu kenn du ko yàq huit kilos la tey na ngeen ñu ko baal bu suba déedéet ay sëñ bi dimbali ñu rek yow tamit suba suba rek tey moom baaxul dimbali ñu waay bu suba waay ay sëñ waaw Sam mosoo xam loolu waaw nii la kañ ah nga nekk àll nii la waay waaye ngeen am njëriñ tuuti waaye gaar booy yow la ñu sax eh. yow yaa Samir ya bënn la yaa mais foo yow la la la mooy sa problème Samir. mo tax bo gisé bo gisé lek di naw la mooy sa problème yow ya tit mais jël jël sa ñam ba tanga tanga nopi mais ya, boy parce que na ngeen kan, pay añ tay mo tax ngeen. waaw ya, jël lan sen gana non ba yaay taxum suur non bu suur cioba cioba boy tay yëpp ci namb yi la nek tamit bu xagn loolu. mënoo nekk si ndamay nga koy xañ ginaar yow moom seen na ginaar bi ba pare. waaw ñu ngi ñëwal lekk ñëwal ko xoolee leelam bi nga xam ne franchement c'est un gars waaye ñu ngi jéggi. la si yàpp waaw kay. yi bëri eh, yi ma dégg fii daa dafa amoon ku doon liggéey. benn pic xaw ma tronçonneuse la xaw ma affaire yi xaw ma da ngeen a film am ay film bazooka de tut tut tut yu metti ndambay la ndambay hmm? boy xolo boy man doon doon ma yeb de boy loolu lekk leen seen añ waaw fu leen neex ngeen dem. yalla ñëwati na yàlla ñëwati na. Ah. ministre bi. ministre la ministre bi mi ngi ñëw. ministre culture. ministre de la culture ministre de la culture. neen mi ngi yegsi. yow ñun ñi def stand up ak ñi def comedy ñun ñun ay duru ñi ñun ci saa suñu bopp. c'est le moment na yaa ngi nii am audience directe te demandé woko ko. tête à tête mi ngi yegsi léegi. vidéo bi lo ñëwee loola waaye bëgg wax waxoko c'est tout. oui ma eh eh lu ñu ak kan bu mu ñu dalaat ah, daf leen ndànk ngeen teel ngeen dal nañ xewlu li ñu xewlu te defaraat fii organise ko gaaw balaa muy yegsi melal ni rek sama wan du ñu wax dama koy ni ci kër bi bi hmm. ba sama yaay jox la sama xaalis ba léegi samay mbir dara avancé wu du CNG bu ma woo du kenn ku ma woo <laughs> ci dina ko de noppi di eh bu lijjanti kii toppatoo ma ma ne sëñ bi wuy ma wuy ma am na foo xam ne nag bëgguma fa egg ak yow yaa ngi may dégg. bu lii moo tax ñu jox la xaalis bi nga lekk ko yaa ngi may dégg. Mm. yëngul samay mbir nag. billaay man kay maa ngi yëngu seen mbir man ni ngay yëngalee ci sama mbagg yi rek nga xam maa ngi ci yëngal ci seen mbagg. bu raw mbagg dina yëngu si yow. yow toogal fii rek di di di benn benn. man man pour wan na li seen mbir rek laa nekkoon. ñu ñu ñëpp ci aras lañ fanaan. yàlla xam na ko laajat gars yi gars fanaanuñu aras. Mhm, dëgg la. Mhm. waaw. lii say mbir a ngi nii nag. Eh, lii mu mën nekkee samay mbir nooy toogee fii naan ay samay mbir. man nii laay liggéeyee nii laay liggéeyee. ma xool. Eh. nuur bul maa ngi lay soog a gëm lii samay mbir la. àdduna da da ngay am taxaw seetlu pour wan nañ seen mbir lañ nekkoon kii li ko jiblu defe nag dama lay wax rek kii li ko jiblu moo nekk laaf bi ñoom ñaar moo tax dama leen ñaanal ñoom ñuy naaw mhm. kii lan moo ko jiblu du pooj moo tax mbiram dafa dëgër man baatama jiblu moo tax wax rek laay def yow lu la jiblu ci eh. biir gi ku raf ginaar gi il faut ñu xool pexe parce que kii ko fee fekk. lii metti na de dafa war a dem dafa war a dem. waaw nag am na ku mu ragal. ñu woo da ko bëgg eh Modou eh, iya, iya, iya, Lo eh, sama mbër boo amee combat daf mel ni eh nekel si yang yaa ngi may dégg yow sa dañ lay xool dëkk bu ñu la yóbbu ma entraînement rek lañ xool loolu man xaar li ma si mënul dafa bëri car promoteur

Mais am naa benn solution. Hmm? Dia chocolat bi gën a neex. yow ñamal ba nga chéri li tax juróom fukki at soppiwul ci man dara damay dund waxtu bu nekk ak ay mbir yu yomb dima may rax si dima na nossa ali